jéego yu am solo yu ñu ci teg ci wàllu loi muy cadre juridique bi waane ci wàllu euh, euh, dund bu ñu xoolee agression yi ba tey mu ngi gën a bari bien vrai que am nañu ay loi yu ñuy protéger boo xoolee tout le temps tous les jours des femmes sont agressées des femmes son violentées physiquement verbalement ou moralement comme ni ma la ko sànq économiquement jigéen ñi ñu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu baree bare bari loolu nag day laajaat beneen taxawaay bu bees may lancer appel à toutes les femmes muy société civile bi muy femme leader yi muy femme politique yi ñun ñëpp ñu def benn say ni ñu xeexee woon ba am parité tey ñu àndaat continuer taxawaay bi ñu gën ko dëgëral gën a dëggal suñu bopp pour que violence yi nga xam ne ñu ngi koy notee ñu koy exercer ci jigéen ñi ñu gën ko mu gën a wàññeeku bu fekkee ne mënta deñ totalement ci dëkk